nañu yem ci lii wala ak lu mën a doon ñu defar rek mu daal di rafet. jërëjëf Paa defal affaire amul problème saa yoo ñu gérer quoi. léegi léegi léegi. kenn du ko xaaral xam ah moo amet. naka biir booy naka bés bi. jaayam jaam. nga xam ne espace day am. moom sama rakk la. ah, ah la. ko génn ci ah. ni ma la ko maa ngi taxaw xale boo xam ne na ko réew mi bàyyi xel. xale boo xam ne aara ko bàyyi xel macha allah ci yar ci teggin ci mën li muy def ba pare boole ci oyof doon taalibe man ko lool macha allah Jibi Gueye nga xam ne bari na lu tëggkat yi di fawee moom bii moo ko keneen sox ko. fee jël tëri dégg woyof tool bi yàlla nga la fa Jibi nuyu naa la. fay naa la sant sëñ Bamba. tey nan ngeen ñëwee ndax ku leen xam-xam leen ci Kirey lu bees. waaw waaw waaw lu bees sax rek incha allah waaw ci kanam tuuti bu ñu sàjjee dinañ xam ne gars yi ñëwaat na. lu seen secret yi ban lii ba saa bu ngeen sàjjee lu bees. waaw mooy liggéey rek. liggéey xam nga ñun ku nu ku nu xam xam ci kafoore des fois dañuy añ ba pare sax génnee sabari yi teg ataaya di waxtaan di créer affaire yi muy ñëw ñu bëri jot nañ ni tuusu tuute bi ba na cee ni tuus tasar ndax tuus tasar daal lëmbe dëkk bi ndax mën nañ nga jox sàcc wax ñu ko waaw non tuus tasar ak yeneen ak yeneen yu gën garaaw incha allah nag nañu xaar léegi rek ah. ñu sàccee lépp leer loolu damay baax parce que non da ngay bàq tuuti wala. waaw ana jili ñëw ana jili kaay dama sàmm tuuti boo bëgg rek ma bàyyi. waaw kay da ngeen ko tëgg léegi nii. maa koy may libéré. bu góor rek ma yegg ma ne. Sidé. ma ne dafa naqaree man su may mbokk dañ ma yónni yaa xam te ma waa Seras yàpp ma waa Wàqinaan Tandem booy yoola yoola yàpp ma yee instant yii daa am leneen lu ma war a ñëwee yee man nag maa ngi combat bu xees bi waaw waaw waaw maa lay bëgg delloo bëggee tam day si loolu ne am la baay tey ñëw def tekk waaw tekk tekk woon la yoon c'est que bee laaj lii parce que liñ ci doon wax yëpp wax nañ ko combat buñ préparé depuis daaw ba ren ñu war ko bëre kon na wax waruñu jëf rek mooy yor te li ñuy xaar dafa bari eh, mbëru mbëru koñ ak mbëru mbedd ak mbëru réew bokkul te borom dëkk bee ñëw kan mooy borom dëkk bi. Siteu. yàlla mi bi mbaru dëkk la. ray billaahi wallaahi wa dina gaaw combat bi jeex mu noppali. ah. billaahi wallaahi wa taala di woo nag sama mbokk Haalpulaar yëpp. yu nekk Kolda yi. combat na si ñëpp jàpp ñu am ndam parce que li ci loxo la waaw mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziaraat yéen ñëpp waaw gis ngeen stade Iba Mar nu mu mel tey kii woote di Pape Abdou Fall Pape production moo woote fi nga xam ne mooy jàkkaarloo diggante kii nga xam ne mooy Siteu xale bi nekk nga xam ne moo nekk Lansar diggante ki nga xam ne mooy Papa Sow nekk écurie Fass ñoom ñoo war a def jàkkaarloo tey fii ci Iba Mar gis ngeen tey boo foo sànni baat mu tax gis nga gars yi géwël yi gis nga Siteu nekk ne toog ànd ak ay. ak compagnon ànd ak ay xaritam ànd ay doomu ndeyam gis ngeen ko moo toog noonu sol li nga xam ne mooy ay verre gis ngeen ko. waaw ah, gis ngeen li nga xam ne mooy kii bi xoolal gaay waa Lansar jug nañ waa Lansar gis ngeen ko ñoom ñoo nekk noonu waa Lansar ñoo nekk nii. ñu ne tey Iba foo sànni lu mu tàq nga gaay nga xam ne moom la saat bi mel cey bi combat da ko cey bi combat gis ne presse yi nañu yëg loos gis ne presse na gars yi maa ngi nii Louza war a dem ni toog waaw gis ngeen tey foo sànni mbatt mu tàkk ci esaat Iba Mar gis nga ñi nga xam ne ñoo ànd ak Siteu ñoom ñooy yëngal noonu ne Siteu Siteu la gis ngeen li nga xam ne mooy esaat bi tax làmb du ak maas dabante la de toute façon di nga gis combat bu neex mais lenn laa lay xamal ci combat bi mooy que Papa Sow moo dàq xeex moo dàq xeex moo dàq xeex Siteu parce que façon xeex ñoo bokk Siteu dafa causé ba mu ëpp te pourtant man de Siteu dóor ko mu daan mais teewul Papa moo dàq xeex cër cëri cëri Siteu moo gën a jëm cëri Papa Sow ci xeeti bëre na parce que boo dee xool Papa Sow def nit am na mboot am na nooju am na wéyale xeeti bëre ndoxtu yu ndoxtu bëre yu bëri mi ngi si kawam léppoon dajal si moom mais làmb nag du ko dàq bëre yaay daan du ko dàq xeex yaay daan parce que làmb léegi logique ko logique léegi mystique bi moo ci bari ba daanaka léegi da ngay analyser boo paree da ngay réer mais de toute façon di nga gis combat bu neex ñoom ñaar. balaa ngay mën a wax kuy daan bis ba jot euh, ba lendemain bi nga mën wax kuy daan. waaw kuy daan moom xam moom loolu dernier décision la suñu borom ma ko yor mais de toute façon daal Papa Sow mooy favori bi. mooy favori bi parce que boo dee xoolit Papa Sow takkusaan mu am Siteu amagu ko. amagu ko am na fi takkusaanam ak Balla Gaye am na fi takkusaanam ak Lac de Guiers. moom Modou am na fi takkusaanam ak Modou Lo. donte combat yooyu sax am fi mook bàcc seeraas am fi mook santa ñing am fi moom ndaanaan yu bëree bëree bëree bëri kon yàgg na si làmb mais man lu ma jaaxal lu ma jaaxal moo mooy Papa Sow dafa taxaw ni Siteu mayoon ma dem euh, Siteu xamal ni ko bu di am yaa war maye euh, ndax yaa ma jur si làmb te yaay magu làmb kon ma dégg mu mel ne ñaari mbir yi commencé nañu xas-xas loolu te dara xewoo non bu dee làmb xale moom Siteu war a dem bu dee làmb xale Siteu war a dem mais bu dee làmb mag Papa war a dem mais de toute façon ay maga xale yooyu yëpp kenn ku nekk concerné loolu lijjanti woo ko parce papa waaru boppam lay bay Siteu waaru boppam lay bay mais combat la boo xamante bi ni dina bàyyiwaat papa Sow ci làmb combat bu koy bàyyiwaat ci làmb la mais bu ko Siteu daanee mën na koo bañ a génnee ci làmb mais fa mu koy yóbbu du ko neex da koy abale ay ñoom Dieng Kayre da koy abale ay ñoom Modou Anta da koy abale ay ñoom Moussa Ndoye aussi papa waaw ah, Franc day dañu rakkaaju donc combat bu neex. wala moom bu amul calcul bu amul calcul dina am xeex dina am bëre xaw ma bu amee. calcul waaw fa la ñu am njaay joxol jóob bu ci amee. waaw ma affaire yi ba doole ya xoolal booy sànni ndox. xoolal non non c' est pas celui loolu rafetul. lamb li rafetul si. loolu rafetul si image yi soxlawuñ ko mu doon mu duggee. nga hmm. xool poisson nu mu duggee. kon supporter na ànd yar ak taali bi rek parce que tamit supporter si tey bu ñu gaañee Papa Sow si te dootul préparé combat. dootul bëri supporter yi Papa yi bu ñu gaañee si te tamit waa Papa Sow yi dootuñu préparé combat. de toute kenn ku nekk sa morom mooy sa trésoru morom. nañ ko naay sal mu naay rek. ayca maa ngi lay jaajëfal morom jaajëf kenn du yow. loo wax si làmb lu ne doo ko teel a takk sa ci si bay waaram di dem ngeen am solo bu leen fàtte ni ñu yàggul dara li ngi tuddee drapeau foofu sa arène nationale ñu dem ànd ak ay mbokk wane ko war wane ko mbor wane ko firnde wane ko faale moo ko mën a jëlee jëlee jëlee jëlee jëlee jëlee jëlee jëlee jëlee waaye am di Moustapha gis nga stade bi Imaam Diop commencé na yëngu te dara xewagul si la waxagul Papa Sow waxagul waaye supporter yi yi ngeen kontaan da ngeen mën na ay xar yu ñu jox kale ca yi ñuy tarkindaa waaye waa Parcelles ñu ngi jóge xanaa mbaamu leen léegi ànd ak daam seen Papa bu Fall ngay seen noonu l'homme des grands événements borom bis bee ñu noonu boo ko ñaata presse tey làmb ñooy def deret. kii deret lay def. ndax sa waay jël télé def daal di ko tere de ñoo xamuñu ne wax wala ko ñu xam gars yi bi ñu gisee da leen kii leen Ablaye soo mbokk ba léegi ñu ngi fi Iba Mar si signature contrat bi nga bu dox ci diggante ki nga xam ne mooy Siteu bu Lansar ak ki nga xam ne mooy Papa Sow Papa ngi nekk écurie Fass euh, di combat bu neex combat bu ñëpp di xaar combat bi nga xam ne jeunesse bi yëpp wala àdduna bi yëpp moom la ñuy xaar ki ko tëgg di Pape Abdou Fall production ñu moo ko tëgg gis ngeen combat bu neex. gis ngeen stade Iba Mar bi tey nu mel tey boo sànn mbaat mu tàkk gars yi fu nekk ngi fu nekk ngi ñëw fu nekk la ñuy ndax euh, signature contrat bi donc yéen ñi nga xam ne yéenay suivre seen chaîne YouTube Medina TV bu leen nag abonné ndax xibaar yi wóor fii lay xewee. waaye bu ngeen fàttali ci bu doy waar di bi nga xam ne ñëpp a ngay xaar combat boobu la ñëpp di xaar diggante Papa ak ki nga xam ne mooy Siteu bu Lansar ñaar xale yi diggante xale ak mag la diggante xale ak mag la xale bi moo soxla wala mag bi day bàyyi xale mu jàll loolu jour combat ba lay xewee incha allahu rabbi

Papa Sow moo toog ne sol mbaxana bu weex combat di leen fàttaliku di leen fàttali rek ngeen abonné di ngeen xam ne mooy seen seen YouTube Medina TV ah di ñaanal kilifa gi yàlla may ko wér may ko wérle ba li ma mbébét ci kër gi yàlla defal ko ko waaw ah, di nuyuwaale ki nga xam ne mooy iso borom la deux fee nga xam ne mooy rond point centenaire ñu war a def li nga xam ne mooy spécial mode tabaski ah fee ne nga xam ne mooy cokkeer di si woo ñëpp entrée bi nag di 2000 francs ku yéex ku yéex doo am place ndax surprise yi leen surprise yi leen li leen dencal moo bëri surprise yi leen dencal moo bëri ah di tuddee ko nag ñi ko ñi nga xam ne tuddee ñi nga xam ne ñoo jara tuddee ku si mel ni Fadaloof borom leer na nañ ak ki nga xam ne monsieur le maire di Bamba Fall tamit parrain bi tamit tudd ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Tidiane ba ñu yi gën nga xam ne ci Messi nekk fee nga xam ne mooy te beneen problème nag nekk ki nga xam ne mooy Ibrahima Traoré di xale boo xam ne nekk si métier bi nga xam ne lu doy waar ñëpp ko si ñëpp ko si naw tamit tuddee ko ki nga xam ne mooy Alioune Fall di doomu ndeyu El Hadj Keita doomu Medina ko tamit ki nga xam ne mooy daam daam mi nga xam ne moo nekk fee nga xam ne mooy. HD ak ki nga xam na mooy mooy Paco Jackson Thiam di tamit doomu Medina presque waa Medina kese fa nar ñëw ak ki nga xam ne mooy Seydou Gueye ah ba léegi ñooy nii fi nga xam ne mooy Iba Mar su ko face to face boo xam ne face to face bu neex la. nana tàng la ndax ñaari mbëri na mayante dara mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sas di leen dalal fii ci stade bi Iba Mar Diop tey dañoo ñëw fi nga xam ni moom moo di ci stade bi Iba Mar Diop au cœur de l'Arena daal di ñëw àndandoo fap ak ci pouvoir ñu ngi wax fap condition àndandoo doon fap condition daal di ñëw moom moo di ci boppam bu mag bi nga xam ne moom la ñuy waajal jëm le premier août ñu àndandoo fap bu ma jeex naa ko Mambo Diawo directeur dégg nga Mambo Diawo nag bu ko xam ci réew mi xam ko ci taxawaay bu baax ci réew mi xam ko ci taxawaay bu am solo ci réew mi xam ko liggéeyal réew mi xam ko liggéeyal fa nga xam ne fa la dëkk waaye fulaa lu daal di soog seen tàll ñëw mu daal di yónnee ay délégation yu am solo léegi nag tey ci programme bi dañuy ubbi léegi ak waa Kër Papa Sow ku ñu ubbee ak waa Kër Papa Sow daal di ciy teg waa Kër Siteu bu ñu paree ak waa Kër Siteu ba ñu ubbi daa ambiance ba noppi ñu daal di woo ngaa topp leen de ngaa topp leen de daal di yegg Serigne Touba bu ko defee daal di ñëw daal di nekk kii Mbamba bu waroon ngaa ko defee kii Mbamba ba noppi ñu daal di woo ki nga xam ne moom moo di Sidi Diop Sidi Diop daal di dugg ba mu yëpp daal di ñëw daal di defar ñu jàllu baas bu ko defee nag ñu laa di woo nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di combat préliminaire yi bu boobaa daañu woo daañu ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkk bëre ñoom ñëpp ñu laa di ñëw kon nag dañuy ubbi rek def ambiance def waa nga fam sec yéen a ngoog ñoo ngoog papa solo ngoog ambiance bi foofu la bisimilah ñu laa di tàmbali ci ambiance waaw dama mel ne ki nga xam ne mooy Papa Sow moom la ñuy dugal noonu pour mu jóg euh, nara bàkku Papa Sow moo nar a bàkku noonu gis ngeen ko cey làmb Sénégal li la namoon li may ambiance Papa Sow ngi noonu di wàcc Papa Sow ngi noonu di wàcc Papa Sow ngi di wàcc Papa Sow ngi noonu di wàcc mooy noonu jëm fa la jëm nga xam ne mooy Papa Papa Sow fan la jëm Papa Sow fan la noonu Papa Sow nekk écurie bi nga xam ne mooy écurie mooy bàq noonu Papa di ki mën a bëree di rakk si nga xam ne mooy Ousa Sow waaw. combat bi tey noo gi waaw lamb ji lamb la joo xamante ne euh, euh, combat la boo xamante ne fu mu nekk nii mën na saison bii combat bi bokk na ci combat yi ñu gën a bàyyi xel waaye nag du combat saison bi combat 2020 la woon ndax li nga xamante ni moo dugg ci réew mi di Covid 19 yàqoon lamb ji nga xamante ne moo doxoon ci diggante Pa Sow ak Siteu naroon a dox ci le 5 avril 2019 ci la lamb ji waroon a dox waaye li nga xamante ne moo fi dugg nag. di feebar bi tax nag tey ñu amaat li nga xamante ne moo di signature contrat bi waaye grand contre buñ petit bi ñu doon wax fii la njëkk a démarré ndax Papa Sow da di mbër boo xamante ni moo di mag ci Siteu njëkk ko bëre njëkk ko jiitu ci li nga xamante ni tey moo di lamb kon fii la grand contre bi petit bi doore moo njëkk a may rakam li nga xamante tey moo di chance waaye Siteu tamit moo nekk xale bi nga xamante ne moo naroon a njëkk a jàkkaarloo ak magam ci grand contre petit bi mu nekk làmb joo xamante ne nag tension mënu see ñàkk. ndax bu ñu xoolee seen première face à face bi Demba Diop Siteu dafa agressé Papa Sow sëqatal ko gëtam ko ñu ne da waaxu ñëpp xam ne lii ci làmb la bokk waaye tey nag xamuñu lan moo war a mën a am ci làmb ji làmb ju doy waar la nag. Eh, combat bi tey ban enjeu la am si ki nga xam ne mooy Siteu. waaw Siteu fu mu nekk nii enjeu bi nga xamante ni combat bi am na ko ci moom mooy bu mu nangoo daanu ndax defet mënu ko arrangé ci combat bi bu ñu xoolee fi mu jugee ci defet la jugee guy gi moo ko daan. xaw ma waaw. guy gi dafa mel ñoom ñaar ñëpp si defet lañ jugee. defet lañu jugee ndax Papa Sow la dëggeere ko mujjee daan moo tax defet arrangé wul kenn si ñoom ñaar ci làmb ji moo tax ku ciy bëre rek ah, ndam rek nga mën a euh, am ci làmb ji nga xamante ni tey moo la mën a delloowaat ci parcours bi nga xamante ni foofu nga génn ndax instant bi ku ci daan da wàccaat ci escalier yi waaw. combat bi tey gars yi suñu demee bay bëree enjeu bi ndax tey diggante ki nga xam ne mooy Siteu ak ki nga xam ne mooy Papa Sow tey Siteu tey su daanee Papa la ko jëmal waaw Siteu bu daanee Papa Sow dina mën a bokkaat ci raawam ndax bu ñu fàttali ni Siteu Sa daf ko daan bu ñu fàttali ni Siteu guy gi daf ko daan te ñooñu ku ci nekk ba bëgg a bëriwaat ak ñoom te bëriwaat ak ñoom boobu noonu foog mu daan fii pour mën a bokkaat ci rang boobu moo tax enjeu bi nga xamante ne Siteu am na ko ci làmb ji ndam rek moo ko mën a jàppale ci làmb ji Papa aussi moom it mooy noonu moom it euh, enjeu bi mu war a mën a am ci combat bi dafa duggoon cour des grands ba ñëpp ne Papa dugg na mu perte essai bi nga xamante ne moom la doon def ci digganteem ak Lac de moo tax pour mu delluwaat moom it foog victoire ci lamb ji moom moo tax défaite arrangé kenn si ñoom ñaar. combat bu gaawee si kan la arrangé. waaw bu gaawee dina arrangé Papa Sow ndax Papa mbër la muy song la mbër la muy xeex te xeexam dafa gaaw. yaakaar nga combat bi na mu xeex. waaw Papa xeexkat la. xeex si kan la si kan la nar a jógee. Papa eh Siteu dafa bëgg a ñëw agressé Papa jaay ko doole jaay ko bandi moo tax lamb ji nii nii nii nii mënut a yomb foog ñu xeex ndaa maag ñool la Siteu da koy jaay ne maa la sut maa la paay loxo foog ma euh, noggatu la balaa ma laa bëreloo moo tax foog ñu xeex foog ñu xeex mën see ñàkk. combat bi dina yàgg wala du yàgg. non nag mu yàgg yàgg boobu ndax xam nga ñaari mbër yu bëgg a bëre fu ñu jaar seen combat day neex. xam nga li olof naan ki bëgg fu fanaan ak ki bëgg dugg si nekk tëjal bunt bi war leen boole looloo dal làmb ji papa dafa war a ñëw wane boppam ne damaa juumoon si te ñëwit mooy war a ñëwaat wane boppam ne damaa juum moo tax dinañ xeex dinañ bëre lu mënta ñàkk si làmb ji dinañ xeex dinañu bëre incha allah waaye lépp rek ñu woowaat encore euh, fan si club yi ci non à la violence ah ndax euh, li Pa Abdou Fall def tey dafa doon loo xamante ne lii mooy làmb signature contrat dañ ko war a mën a organiser ba ku si ñëw rek gis si sa bopp ndax tey boo xoolee fii gis nga ñëpp a ngi ci jàmm ah. nice loolu aussi tamit lu ñu soxla ci làmb la bu baax aussi. ñu wax làmb te waxuñu si làmb diggante kii nga xam ne mooy Balla Gaye de 2 bombal Bombardier te Balla Gaye te instant yi mu ngi si quatre combats yoo xam ne moom la jël ma dégg si réew ba ñu ne Balla Gaye nee na kii di Boy Niang ak keneen ak keneen ki si daanu soxlaatu la léegi noonu noo jàngatee mbir moom. waaw loolu mooy euh, mbir mi ni ñu ko mën a jàngatee mooy quatre avance trois avance lu yàq làmb la. lu yàq làmb la mbër xawoon na ko fi ñu ne ko dafa soxor mais dafa am loo xamante ne ku ci daanu da ngay xool ki jël sa avance lenn rek lay xaar ci yow muy victoire bés bu defet amee ci yow dootul nangu te bëreeg yow moo tax avance yooyu noonu ñu tegle doon ay avance yoo xamante ni mooy loolu la te lu parfait la aussi moo tax euh, promoteur yi dañoo war a xaar ba verdict am ci mbër ñu soogee jël avance di ko jox keneen. mel ni Siteu mooy waaja bàkku may ko ginnaaw xool ko xale yëpp a ngi mi ngi mel ni tey la lambam te li signature kese la nañu xooli si te lu mu nar tey léegi ak waa jàmm gën ndax ji li sekk koy tëggal sama xarit mi ngi noonu ci wet ga. ah moom su baaxoo mu neex su bëree mu neex. mais tamit si te si te géer gu gën a dégg ay géwél la. Ah. loolu laa koy wax chaque jour dama naan ko yow géer gu gën a dégg ay géwél nga waaye loolu mënuñoo bett ndax ji li si ji li sekk mais di ko tëggal ñoom ñaar ñoo ñawandoo jàngandoo métier ba yàlla boole boolewaat leen ci làmb kon par force mu dégg foog mu xam li ambiance làmb ci sama collège moo wóor de. Ah, kenn du yow maa ngi sa ginnaaw. waaw <laughs> ah, noonu la gis nga ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn du la presse ndax lii yëpp seen seen njëriñ la seen seen njëriñ la li ngeen xam ne moom lañ leen di wan ndax euh, lii yëpp ñuy def ñii ñi nga xam ne ñooy suñu téléspectateur yi nga xam ne ñooy siiwar ñi nga xam ne mooy Medina TV lépp fi lay xewee fii nga xam ne mooy Ibou Mar Siteu ba muy dugg si làmb ji gars kenn yaakaar ko woon nii ndax amul woon doole ba muy ñëw di waat tey gëm boppam ak am fit moo ko andi fii tey moo ko andi tey fii mu fii mu àgg tey ndax si newoon yaafus ndax yaafus du taxaw fii nga taxaw tey ji ndax li mu mën a am tey ji ndax Siteu bëggul daanu ndax si defet la ki ko mujjee daan di Papa Sow ki ko safur laa wax ki ko mujjee daan di ki nga xam ne mooy Sa Thiès Papa Sow nag ki mujj daal mooy Lac de Guiers bu nar a métti bu métti ki victoire la soxla ki victoire la soxla diggante mag ak ñu xool combat bi gis nga gars yi ñoo ngi ne Siteu Siteu waa jàmm gën xale bi moo bàyyi ko jàmm gën xale bii moo bàyyi ko jàmm gën cay su dugg see rek ñu xam ne eh, xale bi dugg si na. Géwél baa ngi koy géwél baa ngi koy tëgg géwél bu mu mu ngi koy tëgg ah, lu mu nar lu mu nar Siteu ah làmb yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lépp Sénégal lay lépp Sénégal si tay wàcc noonu di bëgg tuus waa gis ngeen waa jàmm gën a ngoog Siteu yiñ tuus noonu Siteu mooy tuus noonu su jugee waa jàmm gën jóg gis nga ki nga xam ne mooy Siteu ki nga xam ne mooy Siteu cey bi làmb cey bi làmb cey bi làmb aha xawa Siteu C'est ça. saa ngi baaxu noonu sitaan ngi baaxu noonu ah bi combat ah bi combat sitaan yi noonu Gonel Ansar gaa yi noonu waaw responsable bi moom la loon. waaw gis ngeen dafa mel ni si taanu noonu noonu toog bëri na saa bi si taanu bu neex su bëree mu neex. tey bi làmb tey làmb làmb jàmm jërëjëf saa na maa neex lamb ambiance loolu loolu lu ndaw loolu mu fekk maa ngi fekk waa nañ waa jàmm gën tudd nañ ay may ay loolu li may li may Sénégal Abou Niasse may fekk noonu Abou Niasse doomu ndey Siteu mooy baaxu noonu ah, ah. gaar gi mooy baaxum noonu jaam na jaam na jaam dem na si nënd jaam na dem si nënd jaam na dem na si nënd ay làmb ay làmb ay làmb ay làmb ah, Siteu daal dafa njàpp dem ñi nga xam ne ñoo koy tëkkal avancé na Sadio Mate Diop Fall production di gën a am Pape production diggante ki nga xam ne mooy Papa Sow nga xam ne mooy Siteu ah gannaaw ba Papa Sow xam ne bàqu ba pare di la jox ki nga xam ne mooy rakkam Siteu mooy bàq noonu di la Siteu mooy bàq noonu Siteu mooy bàq na ñoo ko dàq euh, fecc sax kenn dàq lu nekk ay jàmm gën waaw ba léegi yéen a ngi fii nga xam ne mooy seen seen YouTube Lumina TV lépp lu leen si làmb ji rek xam nga ne lépp lu xaw si làmb rek dana ko wan loolu bi li nga xam ne mooy jàkkaarloo bi nga xam ne mooy diggante Papa ak Siteu làmb renouvelé la woon Siteu moo nekk moo nekk premier mag bu jox ah, grand contre petit ah, ak yàlla ak dogalam ak feebar bu fi nekkoon di loolu ñu nga xam ne ñooy coronavirus ba tey yàlla suñu borom dimbali ñu ba tey ñooy nii si jàkkaarloo bi war ñu bëri wala bëri nga xam ne mooy premier août diggante Siteu ak li ah, nga ne mooy Papa Sow gis nga Siteu nekk noonu yëkkati na yëkkati na fan sam ko yëkkatee fansam ànd ak ay doomu ndeyam ànd ak ay doomu ndeyam am na ay xaritam ànd ak waa Idri Lat Sarr Siteu xale baa ngoog Siteu li nga xam ne moo nekk ci Lansar wala jàkkaarloo li nga xam ne mooy commencé utilise Siteu di euh, naan beneen bàqu Siteu la koy yëngal da nga da koy yëngal moom la gars yi di way da koy yëngal gis nga ngeen Siteu fee nga xam ne mooy Siteu katami di way li nga xam ne mooy Siteu da koy yëngal ay bi làmb làmb lii la nirool ay li làmb ak génn Medina TV wala Medina Actu xibaar yu wóor li lay xewee nga Siteu moo nekk noonu bu leen fàtte bi nga xam ne mooy Medina TV information ñoo si dóor ba léegi wala du noonu ah. yaa ngi ci noonu ah. Siteu daa leen baax moom moo nekk gis nga ko bàkkoo mu neex bëre mu neex kooku nga xam mooy Papa ki nga xam ne mooy Papa Sow muy toog jël moo fi njëkk def euh, grand contre petit moo ko fi joxe daaw lañ naroon bëre ak public bi moo tax gars yi ajoon yi ba tey yàlla def si ndox mi sedd mooy bi Iba Mar ci jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Siteu Papa Sow gis nga mooy nekk doon di baax Siteu alors man ba nekkee daal noonu gis nga gis nga Siteu ba léegi doyal ko Siteu dafa mel ne baax def na lépp sey lamb sey lamb sey lamb sey lamb mooy na ci tëggkatam bi géwalam dara narul yomb résultat nekk noonu mën ay jàmm gën moo nekk noonu mën ay jàmm gën moo nekk noonu yéeg na si kaw ay Siteu yéeg na si kaw yéeg na si kaw yéeg na si kaw yéeg na si kaw yéeg na si kaw yéeg na si kaw yéeg na si kaw mooy si kaw di mbàqu yéeg na si kaw ay làmb tey jii làmb daal di yomb rek saa yu noonu mën nam la mën nam la te waaw léegi maa ngi si kaw podium bi yaa ngi woy si te si te si te waaye Siteu Siteu Siteu Siteu bi làmb moom nga ngay nekk si kaw ak ñi nga xam ne ñu lay àndal Siteu ba léegi mooy noonu Siteu moo ngi njuk moo ngi njuk xale baa ngi fecc xale baa ngi fecc ma ngi joxañ ki nga xam ne mooy Papa Sow ma ngi joxañ ki nga xam ne mooy adversaire am ma yow ma ngi joxañ ki nga xam ne mooy adversaire am nee na mbasa mbasa nee na mbasa mbasa Siteu a ngi noonu Siteu a ngi noonu déglu ba combat gars yi yéegal wala na ko si kaw yéegal na si kaw wàccoon na nag après gars yi ñoo ko yéegalaat début làmb gars mu ne dégguma leen mu ne dégguma leen dégguma leen ñi nga xam ne ñooy fas yéene ñooy yokk dégguma leen yàlla dégguma leen dégguma leen dégguma leen dégguma leen dégguma leen maa ngi si kaw podium bi day làmb xale bi moom si kaw ah ah xëy na jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Papa Sow mooy joxoñ Papa Sow ne ko su ma la jàppee cay hésité xale gi nga xam ne mooy ambianceur bàq na ba yëngal stade bi bàq na ba yëngal stade bi mooy noonu dalal na fi nga xam ne foofu la toogoon Siteu mooy noonu mooy noonu Papa Sow Siteu combat bi la ñuy xaar diggante grand petit petit la grand bi moo may xale bi loxo wala xale bi moo ko ñaan rewas lépp dina leer le premier août lépp dina leer ak Pape Abdou Fall production ay waay combat Euh, combat bi Ngaaka Blindé mooy yéeg noonu ci kaw Ngaaka Blindé mooy yéeg noonu Ngaaka daf mel Ngaaka la ñuy woo noonu mu yéeg Ngaaka ngi noonu sol li zone li Ngaaka mooy noonu sol mooy noonu sol li zone li Ngaaka ngi noonu waaw gis nga daf mel ne Ngaaka Blindé nekk noonu gis nga ko gis nga ko li nga ngaak xool nga nga ngaak bulan mooy ngaak nga xam ne mooy suba de Papa Sow fu ñu nga tax du waaw boo ñëw wàcc ko damay toog damay toog teel a jox carte bi. yaa ngi mel ne noonu. Thank you. mooy mooy boobu. man ñu ngi lay ziaral bu baax a baax a baax. loolu neex na. nuyu waa seen reporter nga xam ne yaa ngi jiite. walaay ndeysaan. ñu ngi lay ziaral di ñaanal pour fan ak wér. non damaa bëgg a déglu sa rafet. non bu déglu sa ne sa kàddu yi rafet na. yaa tax ñu ñeme tey. presque noonu la noonu la noonu la. dañ lay ñaanal rek. nga mun tey yàlla dafa mun. noonu la bu fekkee amul. incha allah rabbi yàlla bëri na. incha allah incha allah. merci waay père. nga kaa kaa ngi noonu dem na bi nga xam ne mooy. ci Siteu di ko di ko di combat doomu géej waay Papa Sow wàcc na Papa Sow wàcc na Papa Sow wàcc na Papa Sow wàcc na Papa Sow wàcc na Mawazo wajira, ah, mawazo wajira, mawazo wajira, king ba wala ibet, eh, eh, mawazo wajira, mawazo wajira, eh, mawazo wajira, mawazo wajira, fekke ki nga xam ne mooy Ngaaka Blindé, waaw Ngaaka ngi noonu, Ngaaka ngi noonu stade Iba Mar Diop tey ma wàcc na ba zéro comme ni nga xale yi di waxee. waaw gis nga gàkkaa ngi noonu di dem gàkkaa ngi noonu di dem avec kii xaar mooy le golden boy la musique sénégalaise di ki nga xam ne mooy Sidi Diop borom kiin Sidi Diop moom la ñu woo noonu gis nga gars yi dañuy woy gis nga moo toog noonu yëkkati na loxo nee na ko dar derby derby derby xëy bi combat xëy bi combat dañuy jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi woon seetaan li nga xam ne mooy Médina TV di leen ne bu leen fàtte lépp fi lay xewee nga xam ne mooy suñu kilifa suñu mag El Hadj Saliou di ñaanal suñu DG di ñaanal tamit yi nga xam ne mooy Abdou Aziz Niane émission yu bëree bëri ñoo ngi si si nga xam ne mooy Medina TV yi nga wax Papa Sow ñoo ngi woy déranger déranger la ñuy woy déranger déranger la ñuy

waaye warul tëjul tëjul xam nga numéro ko bindal Thank you. Sawla Diop mooy noonu Doudou Diop mooy noonu mooy nit si côté la Diop dem fee nga xam ne mooy Siteu tay loolu jug na Siteu Siteu aha Siteu jug na Siteu jug na Siteu jug na Siteu jug na comme sànq ni nga Papa Sow defee fee nga xam ne mooy si kii si Ngaaka Blindé Siteu toogaat na mooy noonu Siteu Bari ay mbéj bari ay indi moom comment ay ndal comment ay ndal wallaay ni la ko doon booy de la musique sénégalaise Abou Ndiakhate ak noonu di fekk ci am way Diop ah Papa Sow jug na Papa Sow jug na ay biir combat Papa Sow jug na gis nga Papa Sow eh Papa Sow jug na Papa Sow yaa jug nañ Papa Sow jug na ba léegi mooy fecc ba léegi mooy fecc wala gaay wala mbër mbër jug nañ mbër jug nañ mbër jug nañ waaw waaw mbër jug nañ xale bi mooy lëmbe moo lëmbe moo lëmbe réew mi xale mi moo génnee soo moo ñëpp lay way ñëpp mais yéen a lay sàtt gis nga ko

Kurbanın boyu Müslüman Müslüman oyunun sahip olmalı. Bunun yerine Mehmet Ali bu Müslüman olmalı. Senin adın. Sabah olmayan sabahın boyunca kaysırıyor. Allah'a emanet olun. Bana bugün de beyan hakkı ayın sabahı için olmalı. Aynen Kumbul, Gece Müslüman olmalı. Kurbanın Thank you.

xam ne mooy le golden boy de la musique sénégalaise ki nga xam ne mooy Sidy Diop moo ñëw yëngal stade bi comme ko moo nekk noonu Sidy Diop boo ko di def mooy tout noir na ko mooy noonu. maa ngi leen di nuyu Moussa Diallo bu wax ni nag lamb ndam di génn Sénégal sooba ak réew passé loolu ñu toog ñoo bokk ndey ñoo bokk maay nekkoon na ak nekkoon sax ñoo bokk lay ñoo bokk baay loolu mooy sama frère sama xarit si tool bu bëgg ma lool moom amatul na sa bopp kon ci benn njaay bi jabaram bi indi santra kooku naa ci àq si yoo xam ne kooku naa ne Sénégal àq si sa jabar doon ko da ngay ne dama ma ñëw ànd ak moom ma xaar ma fi yàgg yëpp gars yi ne gis ko xam ne bu rafet loolu commencé ko ma koy nuyu bu baax a baax a baax a baax donc dañu bëgg ay ay ay xale góor yoo xam ne aussi sama papa Dankoor tey sama ñaari papa Dankoor muy papa Ndorou Dieng ak papa Mame Boye Diao donc yal na yàlla def jàmm yow nag boo ma woowee damay bàyyi kii ñu ñu jox la paas kontaan ci yow. Ah, ñu kontaan gars yi fàcc leen ma Sidi Diop bu baax a baax a baax a baax a baax. oui wax nga ko wax nga ko mais dinañ leen man taxaw taxaw taxaw man njëriñ la taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw say war na say mu ndaw si da ngay xool rek ana war na say kaay kaay da ngay say kaay si si xool ci ndaw kenn mu xool may ko lii da ngay wax ma xool pusa pusa pusa may si xoolal la si xoolal la si xoolal la si xoolal la si xoolal la si xoolal la ay ay ki nga xam ne si la nekk nga ko papaam di léppam ki nga xam ne mooy Omaro ah ñëw fi ki nga xam ne mooy euh, euh, Mame Boye Diao mooy noonu sunu waaye ah Mame Boye Diao mooy noonu mooy noonu

Vamos a Wilson! 86 ak sa ñooñu nga xam ne ñoom ñoo di waa Thiamba Gueye waaw foofu la foofu la fii la fii la fii la sinon du ngeen mën a wute. ayca wax nga waaw bu ma wàccee micro bi ayca ayca. numéro 2 tey nga xam ne mooy Cokkeer rafet na waay kenn culture def na waay may jóge si fee nga xam ne Papa Sow dañu loo ko ba taxaw gi léeg-léeg daal bu leen fàtte abonné xale yi xale yi xale yi xale yi xale yi gën a xale yi ma yëg yow xale yi xale yi xale yi xale yi c'est beau. C'est beau, culture la ñu culture pël. aada ak cosaan ba xew gis nga xam ne moo xew fii nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop euh, di woo di woo mbëri rek Dasso. équipe cosaan Dieye 2 équipe Lac Sarr ñoo war a bëre yéeg si kaw bi mooy premier combat ah, premier combat Pa Abdou Fall bi nga xam ne mooy am fee nga xam ne mooy le 2 août ñaar ñii ñoo war a daje bi mooy premier combat bi da ko man bi mooy combat ni yéeg si kaw Le combat. Allez. Allez.

waa ITV. waaw yaa ngi dégg ni ñëw yaa ngi dégg ni ñëw dégg ni loo wañ sa wet waaw waaw moo ko tey dégg nañu. na gën a wàcc na gën a wàcc. wàcceel ñu xool wàcceel ñu xool wàcceel wàcceel wàcceel. c'est bon c'est bon. waaw waaw léegi suuf mu ne. mais man d' accord lan moo tax. yaa ngi. dama yëgal ci kaw waay. dégg naa waay. waaw ginnaaw loolu damay expliqué benn message. ñi ñuy jàll ñu ñëw jàpp doomu aadama yi ñu jàll loolu. kon loolu. mun nga fekk lu wut la. kon léegi wax nga ko li tax gaa yor benn avance bi nga jël avance. waaw kii dama koy sax loo wóoree. ndax man it trois personnes jëloon nañu avance moom mu góor ñi day faral di waaw man nag boo ba léegi maa ngi waajal di kii doomu gàllankoor bi kii ko lakk ba léegi maa ngi waajal. നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം doko grand wala ko gi ay bu ko ko ko lay fay daal doko fi nga dagaré am jox ma leen am na solo waaw waaw waaw ba ñu daan daanaka fii demal ma la instant loolu ñu def la dañ ko bëri rek mu gis waaw loolu ba mu suufee ba mu dugg ko ku dugg ko moom bu gisee gars yi ñu ngi xaw ma ko la 44 bi suñu télé bi ak yow ñu ngi ci yow allo suufé si ngay ko la waaw man sa dëkk bi xam sa cosaan non bu ma ko dara koy bu la e bëri nak sa ñu sama waaw ñu sonn ko ko ko la musique daal Okan Macky Sall bi ñu ngi sant yàlla bu ñu ko waaw Fatou Moussa maa ngi koy sant ñu naan pour gërëm parce que ñun tey kaw yi boo xoolee soxla wuñ ko woon ndax amul dara am vraiment loolu mën naa nekk surtout maa ngi leen jàppale ndax loolu kaw yi nekk sa mère. kon donc Fatou Moussa ñu ngi lay sant bu baax pour gërëm waaw am na ñu yoon nag bi laa walaay. mais mais mais wala wala bu ma ko 500 millions de dollars jaay jàpp na ci bu baax waaw ak mu yaay xayma waaw. c'est toi mon frère. Alors, moi, le grand là, il a gouverneur. Comment Mais pas le pouvoir. Vous le maire, vous le maire. Vous le maire, vous le maire. Vous le maire, vous le maire. Waaw Merci beaucoup. Ndiaye Doole écurie Yeumbeul Mbolor mix le Ramdan Baboye deuxième combat nga xam ne moom la Pape Abdou Fall le premier août drapeau Mamboy Diao gis nga ne gis na ni Sidi Diop ñëw na fi ak li nga xam ne mooy Ngaaka Blindé ñëw nañ yëngal li nga xam ne mooy stade bi ngeen déglu rek xool ñaari mbër yi